non xam nga ñëpp xam nañ ne Abdou Nguer moom day xëy si samedi VIP people. dëgg la loolu moom yaakaar naa Sénégalais yu bari xam nañ wallaahi dëgg la te benn yoon laa am bu may jaar fii la. Mhm. foofu laay jaar chaque jour. Mhm. tey nag yàlla dogal may jaar su ma daan jaar sax may jënd café mhm. jaar foofu jënd café bi may taxawee ci jaaykat bi. am na benn ndaw bu ñëw gaare moto. bi mu gaaree moto. tombeeg may wax ak euh, jaaykat bi naan ko man de. su ma su may su may condamné du damay tëju. comme ku tàmm di jaay rek. mbooy bi mu ne ma yow de boo tëjoo sax baax na. ma daal di ma daal di gestu ne ko pour lan noonu mu ne parce que da ngay nekk ci télé bi di fenn rek ma ne ko mais boo yow reew nga de mu ne ma sii damaa réew kay moom bi ci boppam mu ne ma damaa réew kay. ne ko lan laa fen mu ne ma yow yaay mbokk aji saar ma ne ko mbokk aji saar ndax délit kirim la mu ne ma kirim la kay ma ne ko bu dee kirim da nga ciy def sa doole mu ne ma boo taxawee sama kanam. Dari di saaga pour ni seetaan baña ci bi mu saga nday ma bimajendon. ndey. Mhm. ma daal di këpp café bi ma yoroon bi ma jëndoon. Mhm. gox laa ji wax ma tour ko. nga kep ko ci boy bi. dedet dama ko tour ci hmm. ma ñew ko taxaw ba sama bop di ko laal. Mhm. mu ne ma xaaral ma ñew parce que daf neewon ma taxawé ci kanamam. mu def ma non mu ne ma xaaral ma ñew ci la dem ci sen magasin bi jël fa ben chaîne. chaîne yoy ñuy wa moy auto yi bu koy xëc ci sax bu pané chaîne yoy la jël mu lem ko bu mu ko lemee daw di ñëw ñëpp a ngi toog parce que am na ay quelques gars yu mu kii ñi ngi toog nii à côté après la def repère boobu ñi ngi toog à hmm. moom bu muy daw di ñëw romb na leen. Hmm. bu muy daw di ñëw comme man yàlla dimbali na ma gone gone mbàkke laa ñàkkuma fayda. Hmm. bu mu dawee ñëw nag ci laa ko intercepté. dóor loxo bi. bu mu déclenché ci laa dóor loxo bi bi ma dóoree loxo bi fii fokk euh, kii bi parce que fii biceps la boo dóoree. loxo seen bi wadd seen dafa diis. yow yaa ko dóor. waaw man maa parce que loxo bi laa dóor loxo bi rek laa mën a dóor su ma ko doon jéem a dóor kurpeñ daf may dóor seen bi mais il fallait ma intercepté ko mën a dóor loxo bi. Mhm. ak sama kii bi pour mën a rey fii. Mhm. sinon loolu am na ñu may seetaan dinañ comprendre. su ma ko mhm. deful woon. Mhm. loxo bi parce que fii loxo doole bi fii lay jóge boo dóoree fii rek mhm. automatiquement lii day vibrer. chaîne bi nag ki la daanoo. ci laa ko ci bi bi daanoo. ma ma ma épaulé ko jël sama lii teg ko ci kii bi dóor ko kurpeñ pour man koo néewal doole. kon jot ngeen xeex. jot nañ xeex ci laa ko dóor kurpeñ mu rocceeku ma jël chaîne bi xàcc mu daw léegi nag ñooñu copain bi doo ko jóg daw ñëw. pour wàllu pour téye ma bi mu ñëwee dañ ma téye mel ne kuy àtte mais dañ doon sot téye ma moom mu daw for xeer bu muy for xeer di ñëw gis naa ko muy ñëw fekk coppe bi ñu ngi ma téye fekk am na ku doon jógee nii daw di ñëw moom tamit. Mhm. ci ñu doon raxas oto. Mhm. moo ko téye moom. Hmm. ak keneen ku doon ñëw di jënd si ndékki ñoom ñoo ko téye sinon bu toon ñooñu day ñëw dóor ma xeer bi. Hmm? léegi ñii gaaw bàyyi ma daal di daal di effacé wu fekk maa ngi téye chaîne bi. Mhm. ma ne ma ne ko léegi damay yóbbu chaîne bi. ma ne ko léegi bu dee góor nga dab ma nga ñëw jël seen bi léegi ñooñu noonu coppem yooyu ñoo jugee waat foofu ñëw daw ñoom ñëpp wóor ma ne ñoom ñoo moom seen bi pour bañ a xëccoo ma bàyyee leen seen bi. Ah, nanguwuñu ko de force ci say loxo. dañu ko téye xëccoo koog man dañ ko nangu kay ma xëcc ñu xëcc ma bàyyi leen. Mm-hmm. ñu daal di dem ci magasin bi foofu noonu ñuy jotaay. Mm-hmm. ma daal di taxaw à côté bañ toog ma daal di ñëwaat ba ci magasin fi ñu taxaw. delluwaat ba foofu waaw booy bi moom effacé wu na. Mm-hmm. ma ñëw ne leen seen bi laa soxla ñu ne ma seen bi ñoom ñoo ko moom. Mm-hmm. loolu rek confirmation boobu laa soxla woon ma daal di dem xam ne complice lañ dañoo tëgg seen mise en scène parce que foogoon nañ ne booy bi bu yëre ñëwee ak seen bi dina ma gaañ. Mm. après ñu jéem a xam nga rek après nëbb booy bi parce que comme ñoom mun nañ leen identifier foofu te identifier naa leen léegi booy bi comme moom mënu mënu ma ko identifier foofu parce que motoom la ñëw gaare. Mm-hmm. te chaîne bi caabi la ko tijjee bi muy jël seen bi. Mhm. seen bi benn poto bu nekk foofu lañ ko def di ci di ci tëj moto yi. Mhm. caabi la dem tijji seen bi ñëw fekk ma fi ma taxaw ba maa ngi koy xaar ama man nag lu metti metti du ma daw mu tijji ko mais après ñoom ñoo ñëw ne moom chaîne bi. booy bi am na accès ci seen bi ba tijjee ko caabi. Mhm. seen bi kànnaar lañ ko def. tijjee na ko caabi ñoom nee nañ ñoom ñoo moom seen bi ñoom ñooñu ci magasin bi kon mise en scène bu ñu tegoon la contre man. parce que chaque fois da fay jaar. fof moy sama yoon ku ne xam na ni man fof moy sama yoon de euh, la BRT bi sax des fois ci arrêt bi njëkk xam parce que arrêt bi dafa yàqu. Mm-hmm, non pareegul. benen arrêt bi Sacré Cœur la né mm-hmm. beul lay mën a obligé wàcc dox ñew loolu la affaire yi demee man après ma dem euh saisir euh, police def plainte léegi nak ma ngi déglu ba xam yoon lu mm. ci dogal. waye nak sant na ci yalla bu baax nak parce que bima ma jëlee chaîne bi mënoon na demee neneen dal mais gërëm na ci yalla ba jappumako parce que nag nga yor ngànnaay di dóor nit ki ba mu jël ko euh, li li ci li ci li ci war mooy mu fekk laa ngànnaay rek def la la mu war a def waaye nag sant nañ ci yàlla bu baax a baax. Hmm. daal noonu.